Euh, par rapport ak euh, journée bi tey lan ngeen jàpp ni def ngeen ko ba ngeen egsi fii tey. ah jàpp nañ ni biñ doon waajal journée bi yëpp ñu ngi doon massifier partout à Dakar ak si sous région bi defe naa tey bu journée bi yegsee fii yëpp massification boobu noonu moo tax journée bi yegsi fii ñu toll waaw. ci aussi jàpp ngeen ni tey euh, mu ngeen exe ba ci bës bi gis ngeen ni li ngeen doon xaar ci nit ñi aussi wuyu si leen la. waaw li ñu doon xaar moom man moom daf ma dépassé wax dëgg yàlla bu ma bëggee wax dëgg rek li xaar ma ko woon wax dëgg yàlla si surtout taxawaayu jigéen ni taxawee nii tey tey xalaatu ko waaju kii wax dëgg yàlla xaar ma ko woon mais gis naa seen Pastef ak seen taxawaay wax dëgg yàlla ñoom ñoo njëkk ci salle bi ba tey wax dëgg yàlla ñu ngi jaayante liggéey boobu tamit lan ngeen ciy xaar ci ñoom ñi nga xam ne teew nañ fi tey mën gën a euh, yaatal liggéeyul Touba ci ah ñu leen ñuy leen woo ñoom ñëpp ñu dugg si liggéey bi rek te xam liggéey sëñ Bamba la ku ci def ci li nga war a def rek sëñ Bamba mooy fay fii kenn woowul kenn sëñ bamba ku ñëw rek sëñ bamba la woo ku liggéey tamit sëñ bamba tax ngay liggéey te buy fay bi tamit bu fay bi ñëwee tamit nekk di nga xam ne fay na la bu boobaa waaw woo sama mbokk jigéen yëpp di woo Dakar sous région beeg euh, diaspora beeg ñëpp ku mu ñëw rek na nga mën a dugg ci liggéey bi liggéey bi ndax liggéey bi yaatu na trop ku nekk boo liggéeyee dinga nga des te bor sa morom bu ñëwee tamit dina liggéey ñuy woo sama mbokk may wax sama mbokk jigéen yëpp wax leen ñu ñëw ci liggéey bi ndax liggéey bi yaatu na waaw di ko am contentement bu baax a baax si journée bi seen taxawaay niñ taxawee nii di gërëm suñu bàjjen bi du Mbacke nga xamante ni mooy suñu jëwriñ ñun jigéen ñi di ko ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal sëñ Abibu euh, Fàllu moom tamit euh, mooy jëwriñu euh, Touba ci kanam di ko ñaanal moom tamit gudd fan ak njabootu maam borom Touba bi ak njabootu maam Chara Fall yëpp tey ci teewaay bi gis nañ soxna yi seen bës la tey aussi seen bës la ban message ngay am pour lancer leen euh, bu nga xamee ne tamit tey bës bi day tax rek ñu gën a mën a sauvewaat ci liggéeyal seen Tuubaa waaw message bi may lancer rek moo ñu jàppoo bokk ndey bokk baay te xam ne ñun ñëpp sëñ Bamba moo ñu njabootee ñun ñëpp sëñ Bamba ñu njabootee te sëñ Bamba dafa nekk loo xamante nii kenn mënu koo kenn mënu koo séddoo ñoo dañoo bokk loo xamante ni mënuñu ko séddoo muy sëñ Bamba kon ku ñëw rek na nga sóobu ci liggéey bi am si te euh, am ci euh, yar ak teggin boo xamante ni wax dëgg yàlla boo ci duggee rek di nga am euh, fay bi nga bëgg. asalaamaaleykum wa rahmatulah d'abord maa ngi waaye képp ku ñu seetaan di wax ni bés bi tey bég nañu lool bu ñu egsee ndax yàggoon nañ koo jàpp doon ko reporté ndax mbas mi waaye tey bi ñu taxawee bég nañu. ndax gis nañu relever nañu le défi de la mobilisation te ñun loolu lañ doon seet donc euh, li ñu bëggoon mooy massifier moo waral ñu woote ndax Dakar dafa am un potentiel boo xamee ni atteindre guñ ko woon bés bi nag occasion la vraiment pour ñu atteindre euh, am espoir. donc par rapport euh, ak liggéey bi tey gis nañ ne da ngeen woote loolu ñu tuddee massification maanaam gën a yokk mbooloo mi est-ce que loolu jàpp ngeen ni tey ñi fi teew ci soxna yi ak ñi nga xam ne ñooy soppe Touba Ca Kanam jàpp ngeen loolu euh, attan ngeen ko tey. macha allah tey ñun sentiment de fierté waaye mbégte loolu la ñu am ndax boo gisee tey la salle est comble te kon ñun jàpp nañ